ngir ni mu yaree doomam ji tàqalikook seen bàyyi uuf leen mat leen nday sëkk waaye mat leen baay sëkk la ma waxoon Aziz Ndiaye laay wax say doom seen baay seen yaay dëddu nga mat leen nday mat leen bàyyi loolu laa waxoon Aziz Ali Ndiaye waaye loolu lay waxaat Viviane jàngalewaat na ne boo tàqalikoo ak góor yàlla dogal ngeen tàqalikoo njaboot gi mu la bàyyi na nga ci was lu àq ba seen baay du la jippi ëllëg bu bis taxawee te nag réew mi cam am na waaye awaaw góor am na barke Serigne Saliou Viviane nag dara neexuma ci xew mi xew mi neex na macha allah teraanga yi bari na teral na doomam waaye li ma gën a neex mooy keroog ba mu bañ ko takkalee cosaan mu jox yaayam valeur protéger ay awraam ba jëkkër ñëw mu jox ko lu leer nda teral ndayam ak fi ndayam tollu ci réew mi ami soppe ami noonu moo tax dama ni nit ak noo mënti mel say valeur mooy li nga yot li nga yot jigéen day takk li mu yor koy takk koy takk takk ba mu teeŋ boo solee sipp na nga ko takk boo solee pantalon na nga ko takk loo taaru taaru na ko takk waaye loo ñaaw ñaaw it ko takk boo ko takkee takk mën naa jur lu ne man caq ya ko bàjjanam bi takkal foofa rek la sigg foofa rek xaw mi yamoon na faa barke Serigne Saliou sant naa ko man ndax yaay laa waaye gërëm naa ko ndax yaay laa Zeyna jërëjëf jaraaboor waaye Viviane jërëjëf jaraaboor ci ni nga gunge sa njaboot nday day gunge doomam nday nday kole njabootam nday day bëgg doomam nday day jege doomam waaye nday day protéger doomam doom dafa neex ci xol boo yàqee sa njaboot yàq nga societé waaye boo defaree sa njaboot defar nga àdduna bi yëpp waaye maa ngi ñaan moog buuba nduur yàlla na leen suñu borom delloowaat ko ah, ah yaay yaay yaay nag yaay Bouba am na nag soxna bul fàtte nag yaay góor war a am ba ñett ba kon yow li li di bi jeexee léegi xale yi loolu lañ mës am sëy bu Viviane mën a amati ci àdduna du dàq sëy Zeyna ak Philippe te buubaay seen baay te Philippe toll na ni buuba macha allah kon muy xool baayam di xool yaayam plaisir boobu plaisiru àdduna la te Viviane benn taar rek la amoon te buuba jël na ko leer yi mu am yëpp buubaa ko ko jox te buuba it leer yi muy xool di bëgg yëpp Viviane ko ko jox jaara buso te kii taalibe Serigne Saliou la kii taalibe Baye Laay la kon ñoom ñaar dañoo war a dendu bu dee gën na ci ñoom maa ngi ñaan ci darajay Seexul Xaddim yàlla na ko suñu borom def ci bisu weeru at mu bees mii atu lislaam atu diine maa ngi ñaan ci yonent bi yàlla na leen boolewaat. yaay nag ba première dame Binta du la mere nag. Binta dafa bëgg jege ndax picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf buuba lu mu nelaw nelaw nelaw ak lu mu njeganaayu njeganaayu xelam nekk ci ñaaram yii njëkk a gis waaye njëkk a bañ a fàtteeti ba mukk ci àdduna waaw kooku buuba jege ay doomam mooy plaisir ndax gis naa ko ni mu doxee première daam ku baax la. ndax keroog na mu defee ku baax rek ko mën waaw looluy àdduna àdduna duñ ko war a boole cere ko laala ko sa jëkkër da koy uuf uufle ay doomam sa jëkkër boo ko bëggee da koy yërëmal doomam yu njëkk ñu fi seen yaay nekk ak ñu fi seen yaay nekkul nga uuf ko góor bala nga koy uuf dëgg da koy uufal njaboot gi mu am boo ko uufalee seen diggante day gën a kole day gën a yàgg loolu baax na ah. ginnaaw ginnaaw mariage bi dafa am jàngat boo xamante ne sénégalais yi dañ ko ci def ne dañoo kontaan ci seen taxawaay ñoom ñaar ndax firndeel nañ ne tà tàggoo warut a tax dara di ñaaw waaye tàggoo warul tax sa jëkkër amaat jabar yéen ñaar doo leen am rapport yu bien. man sama jëkkër ji ma am mooy sama jëkkër ju njëkk mooy sama jëkkër ju mujj te maa ngi ñaan yàlla na ma suul mbaa ñu bokk benn bis maak moom gis nga jaara bu so sëy yu bari suñ borom da koo jeexal te yàlla na ko suñ borom defaraat buuba yow yow jaara bu so buuba dafa gërëm Viviane te ma xam ne buuba du koy tricé waaye Viviane dafa taxaw xaar buuba déglu ko mu gërëm ko ma xam ne da des gor te beewut kon diggante bi daal yàlla na ko suñu borom defaraat man daal maa ngi ñaan bis bu bis bu Zeyna di uuf sëtam Viviane bis bu uuf sëtam bu ba yeewoo këram wala mu yeewoo kër kër kër kee ñu àndandoo ñoom ñaar daal man daal lii laa bëgg maa ngi koy ñaan yàlla. lu rafet a rafet daal man daal damaa bëgg lu rafet barke mën man damaa bëgg lu baax lu rafet barke Serigne Touba. ak jafe-jafe yi nga xamante ne tey am na ci diggante Viviane ak kenn koo xamante ne peut-être sœuru Bouba la gis nga coow yi nga xamante ne amoon na ci ba yoon daal di am ndax mbir mën na delluwaat normal aussi. foofu nag dama fa dul mën a dugg duma fa mën a dugg jigéen bu sa càmmiñ takk jeeg jeeg ba sa jabar la te erreur kër yëpp a koy am man sama kër ñàkkul erreur te day jeex. maa ngi ñaan daal fu jàmm mu nekkul yàlla na fa suñu borom def jàmm man daal loolu laay ñaan yàlla sama borom man taalibe sëñ Saaliw laa man lu rafet rek laay xool barke Ahmadul Xaddim man sama bëdi lu baax rek lay xool damaa bëgg lu baax xanaa ma bëgg ko te mënuma ca dara waaye dama ko bëgg ci sama xol jërëjëf balaa ñuy jeexal nag ñu fàttaliwaat ne maman Soxna Aida Saliou mooy la grande voyante te nee naa leen fi mu nekkoon jugeewu fa ba tey de mbir mi Bamba la tudd mos xam ku ko weddi nag numéro yi boo ci wootee incha allah lépp loo xamante ne bëgg ko di ko am ci wàllu ñaan wàllu lépp loo xamante ne jafe-jafe doomu aadama la waaye yaa booy pomade yi tamit macha allah pomade yi nga xamante ne moom moo baax ci kër yi di dëgëral sëy yi di neexal néegi ta benn coow du yëngu fexe naa ba jaaykatu pomade yi du ma ci passeport ma ci carte d'identité visa laa ci ndax ba may tàmbali kenn tàmbali wut pare ku ko gis ci réew mi ba mën ko wala nga dëbb ji leneen ba mën ko naw gi nga ma ci naw la ak niveau bi ma yóbbu eh, kon sant la man kàppoo laa ci beneen bi ci des mooy seet gi yoruma ci jikkoy dollar yoruma ci jikkoy euro amul yéeg amul wàcc fa ma ca nekkoon rek laa nekk mooy pound laa beneen bi ci des mm-hmm. mooy kii li ma may ci réew mi ku ko bàmba mayoon sa maam nga yëkkati sa loxo di daw bay naaw mooy teral na ma fi mu ne nii lu ma dimbalee sama njaboot gi nekk ci réseaux sociaux ba ku ne baax ba ku ne gore waaye ba ku ne gëm sa bopp ca fafalaa ne may xaar daal xaar ma ci taalibi Serigne Saliou bi kuy xool Aïda Saliou nag Aïda Saliou yaay waali waaye ku may xool nag xool ma ci sëriñ saaliw bu ma xool fen man Serigne Saliou rek a fees ci man su ma la rombee di dem saaliw rek su ma la toogee di la xool saaliw rek su ma kàddoo saaliw rek man saaliw rek laa yëg di ñaanal sama doom Wally Ballago Seck je t'aime très fort mon fils adoré booy kontaan nañ bu baax baax wax dëgg fa yàlla euh, su nekk buñ jàkkaarloo ak yow mbégte dong la ñuy am di la jaajëfal nag ndax saa su nekk kër gi naa la bu ñu ñëw duñu tàggoo dañuy jékki-jékki rek ak suñu caméra euh, bett la ci li nga xamante ne moom mooy teraanga yi nga xamante ne moom ngay def ndax bu la neexoon nag buñ la bettee daal di ñëw nga ne déedéet euh, bu leen bu leen bu leen taal caméra yi wala buñ la bettee daal di ñëw nga ne mbir yi bëgguma muy fës waaye xam nañ ne kër gi suñu kër la te amuñu fi sens interdit ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi nga xamante ne am nañ ko ci kër gi bu ñu ñëwee dinañ dekki ba suur naan ba mandi toog def lu ñu neex ci kër gi wane nga ñu ne carrément ñun ci sa njaboot euh, la ñu bokk waaye ñun itam wan nañ la ne carrément nag suñu yaay nga suñu maman nationale ayca jeex na gërëm faama mi nga xamante ne nee naa leen moom tamit macha allah yàkku ci dara faama bay ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax jàmm xéewal ak sutura euh, jigéenu ma Masamba gërëm ñëpp sant ñëpp jox ñëpp rendez-vous très prochainement ci beneen gox ak yeneen daanaan waaye ñu bàyyi suñu yaay mu tàggoo yaa booy sa dernier bii dernier mot nag bëgguma koo wax de ah waa émission bi lu koy jeexal <laughs> dernier mot hmm? dernier mot wi lan moo koy ah, ah, ah, après après abadan rek <laughs> waa ñaan gudd fan wér jàmm mm-hmm. yal na yàlla def ci réew mi jàmm mm-hmm. yal na yàlla tàppe xol yal na yàlla suturaal nu yal yàlla sagal nu yàlla may ñu ñu bëggante ñu jàppante te ñu yéenante jàmm ci kàttanu yàlla ak mbaaxu yéenante amin mi ngi noonu mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di jox ñëpp rendez-vous très prochainement ci beneen gox ak ñeneen ñoo xam ne dañuy seek ak moom waxtaan di là da ngeen di wéy di topp Medina TV ci li nga xamante ne moom mooy programme yi partager abonné liker su ko defee dara du leen rëcc suñu information d'ici et d'ailleurs waaye balaa loolu rek mbokk yi dinaa gërëm kon kenn koo xamante ne euh, moom itam da siy jàpp bu baax a baax muy Moodu Moodu nag nekk ca fa nga xamante ne kon moom mooy poste Thiaroye nekk kon euh, li nga xamante ne rek moom mooy vendeur de pièces détachées nekk ca post Thiaroye Caaroy Modou Momo Samb maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko gërëm di ko gërëm moom itam saa su nekk rek eh, da ci day jàpp ci li nga xamante ne moom mooy Médina TV jox ñëpp rendez-vous très prochainement ci beneen gox jërë ngeen jëf mbokk yi